population kër ca Kër Cheikh bu ñu defee constat que ne depuis Covid 19 bi am am na suñ ay mbokk am na suñ ay nawle am na suñ ay doom yoo xam ne bii ci ay jafe-jafe ci ñooñu mom moy xalé yi nga xam ñoo nekk ci daara yi té seetlu nañ né bu 20 h xasee jot heure boobu lañu daan dugg ci kër yi ñom di yelwaan té couvre-feu bi ni ko président décrété donc yoon mayul kenn ngay génn di taxawaalu donc xalé yoy kay ñing ci ay jafé jafé jafé jafé yooyu mom moy nan lañu def ba lekk. ci loolu nag ci la ñuy def suñ kuréel gi toog waxtaan xalaat nan la ñuy jàppalee xale yooyu nga xam ñoo nekk ci daara yi ci la ñu ci quartier bi sensibiliser ay kilifa yoo xam ne bi ñoom dañu yor daara te ñoom ñu nekk ci jafe yooyu tey nag euh, bi ñu boolee suñu ay doole suñuy doole bu ñu ko boolee woowaat suñu ay kilifa ñi nga xam ne bi ñoom ci koñ lañ dëkk en tant que popul euh, habitant du quartier ku ci mel ni le ministre Dame Diop ku dëkk ci quartier bi la donc ku ci mel ni le directeur de l' emploi Pape leen waxee xalaat bi xalaat bi rafet lool ci ñoom Nous appuyons nous, ngir ko ñu réaliser tonnes de riz 20 euh, euh, bouteilles d'huile de de litres avec une somme d'argent boo nous dañ chaque dara suñ la dépenses quotidiennes. le avons bi ci dépense quotidienne dañu jël nous euh, nous xalaat ne fii ak fukki fan ñun nous avons jours diggante bi nga xamné ndimbal li nga xamné mom le président insisté né da ko bëgg jappalé aussi les personnes diminuées loolu mo né excité donc kon tey ñun wa kuréel gi nek ci biir Kër Cheikh tay loolu mo nek li nga xamné ne bi moom lañ jël initiative donc ñu def appel nak à tous les populations ñi nga xam ñu ci jima ci biir Kër Cheikh ak liko wër ak ci Sénégal ñu xamné euh fièvre bi lu am la ñu xamné fièvre bi impact yi mu indi ci biir réew mi dafa nek nak impact yu méttee metti sur le plan économique gis nañu ne dana jafe ñi nga xam ne bi dañoo nekk seen loxo jotu seen ginnaaw pour ñu mën a génn dem ci biir marché yi wut lu ñu am ba mën ko jox seen njaboot xaw na jafe waxantuma laaj borom daara yi kon dafa jot ay kuréel yu mel nii jóg waxtaan xoole si boole seen ay doole ngir mën a jàppale ñooñu nga xam ne dañoo nekk ci ay situation di jafe-jafe ci loolu nag wax dëgg yàlla ñu ciy remercier bu baax ñi nga xam ne dañu ci jàppale suñu jàllee ci kuréel gi dafa am ay kilifa yoo xam ne dañu dëkk ci koñ bi yàlla jox leen tànk ñoom itam wax dëgg ñu ngi leen remercier bu baax mu ci mel ni le ministre Dame Diop di ku mel ni le directeur de l'emploi Pape Modou Fall ñëpp ku ci nekk wax dëgg ak ñeneen jàpp nañ ci waaye daal ñu ngi leen di bu baax vraiment si li nga xam ne bii geste la boo xam ne geste bu am am solo la yaakaar naa ki xiif moom ku ko jox mu lekk rek la la bëgg quoi di bu baax a baax di gërëm ci initiative bi nga xam ne monsieur Fall mi def na ko ak monsieur Dame Diop ak ñoom ñu àndal euh, ñu cee sant bu baax maa ngi wax nag ci turu daar yi nekk fii ci biir euh, Kër Cheikh Euh, ñëw ci seen kàddu ci lay waxee euh, di rafetlu nag bu baax a baax a baax jëf ji ndax euh, wax dëgg yàlla bi mu amee ñoom ñëw nañ fa ñu waxtaan ñu wax ñu liñ bëgg ñu leen a ah, loolu dañuy ku ñu ci dimbale ñu jël ndax kenn ku ci nekk xam na ne situation bi ni mu demee jamono jooju nga xam ne ci la ci lañ joxe heure bi ci jamono yooyu ci la yenn xale daan def ci biir ki maanaam ut luñ si turloo su ngeen demee nag yàpp ci comme mu mel ni a ah, dañ cee sant bu baax gërëm ci te ñaan ci bu baax a baax a baax ndax kat waxoon na lu mel nii te jëf ji rafet na jëf rafet rafet goo xam ne yàlla moom doon na koo xam ne am na fulla ju toll ni du fey ko ko jëfalul dara te nag booy boo ngeen xam ne ngeen séntu ci fayu yàlla xam ne di ngeen ko ci am bu leen neexee di ngeen ko am bu leen naqaree di ngeen ko am te yaakaar na loolu di ngeen ci bëgg ndax uh, Seydina Ali bi mu defee jëf ju mel nii waxoon na ca laa nuridu minkum jazaan wala shukuran inna naxaafu min rabbina yawman abusan qamtarira ba aya ba jeex su ko defee loolu ñu mu bëggoon ca yàlla defal ko ko yéen yàlla leen ko yàlla defal kontaan nañ ci bu baax a baax a baax sëñ Fall bégg nañ bu baax ci taxawaay bi te it wax dëgg yàlla daara yi it ñoom it kontaan nañ bi ma leen waxee nam fa deme kontaan nañ ci bu baax ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm bu baax di gërëm di ñaanal jàmm liñ li ñuy wax daal mooy ñoo ngi ñaanal ñëpp jàmm te mbir mi mbir la moo xam ne ëpp nay caaxaanee nag nay leer ëpp nay caaxaanee ndax bu ñu foog it ne mu ngi dog a am déedéet mbas yàgg na am waaye nag la ciy dimbale nit ñi mooy ñaari mbir kese nag surtout ñun fi ñu nekk nii Sénégal surtout di njaarim ñaari moom nañ ko bàyyi xel bu baax mooy nañ sàmmonteeg li docteur yi wax bàyyi xel bu baax li docteur yi wax ñuy sàmmante ak ñoom ndax kat ñoom yàlla leen cëral kat seen xam-xam ba ñuy waxee ca xam-xamu yàlla la kon dañ leen war a cëral ci lañ wax bu li ñu wax ne nañ ko def nañ ko def ndax docteur rek moo am sañ-sañu nit ku woor ba ngoon wala ba ba bëccëg nga dem hôpital ñu ne daggal sa koor gi te duñ ci am bàkkaar kon xam nga ne kooku yàlla cëral na ko la tax ñu wax ko ñoom xam nañ ko kon buñ ñu waxee ne nañ leen def nangam def leen nangam lu ñu wax rek nañ ko def ba pare nag boole ci di ñaan yàlla yi nag waaw du ko defee di ñaan yàlla bu ñu ko defee yàlla mën nañu gën a defal tawféex kon yal nañu yàlla dimbale bu baax ba lépp ñëpp ñi ko am yal na leen yàlla sifaawu ca sifaa um ga ñi ko amagul yal na leen ci yàlla musal ñu ngee wax naan yal na ñu ci dégg doy waaye man dama ne déedéet yal na bu ñu ko déggati sax laay wax